assalamu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki réew mi ngi leen di nuyu bu baax di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di fatale rek aya alquran ba suñ borom di ci wax ni alladhi khalaqa almauta mawta wal xayaata li yabluwakum ayukum amala wa huwa alazizul ghafur borom bi tabaraka wa taala faatu la njëkk bind dogo bind dundu ngir xool ci ñun kan moo ci gën a rafet ay jëf sëñ Sidil Moxtaar mi nga xam ne moo fi bàyyikoo nag yàlla dafa dogal mu bokk ci ñi nga xam ne seeni jëf jëf yu rafet la yoo xam ne dama koy seede te nag wa ma shahidna illa bi ma alim na jëfam ci bëgg alquran jëfam ci bëgg lislaam jëfam ci bëgg lépp loo xam ne lu baax la jëfam ci bëgg alquran mooy yàlla bi mu dogalee ma jàng alxuraan ba mokkal ko ba beqe ko ba bind ko ñibbisi maa ngi bokk ci waa kër Serigne Abdou Dia Mbacke Diwali ngi may woowee siñ Khadim Mbacke Diwali ma ñëw jox sama waajur bu góor Serigne Moustapha sama kaamil mu ànd ak man ak sama ñaari rakk ñuy wax Serigne Abdou Khadir Mbacke ak Serigne Saliou ñu dem ci guy mbind ci Serigne Sidi Muxtaar ngir jox ko kaamil boobu biñ ñëwee suñ Seex Coro moo ñu recevoir bi ñu recevoir ñu dugg ci salon suñ Sidil Muxtaar fekk ko fa biñ ko joxee kaamil alxuraan bi ci dënnam la ko njëkk a teg bi ko tegee ci dënnam daal di koy ubbi xool ko daal di may wax ne ma eh, yaa ko bind ma ne ko waaw mu laajaat ma ko ne ma yaa ko bind ma ne ko waaw ndax boobu dafa fekk kaamil bi ñu ma def ci ay décoration yu yu rafet yoo xam ne boo ko gisee dangay nga yaakaar ne machine moo ko defar fekk ne décoration yi ñun ñoo ko di def ndax doo ngay léeg-léeg mm, adduna day avancé daal mën ngaa def yenn décoration yi bi ma laajee ne ma ndax yaa ko bind ma ne ko waaw ci la ko ubbi jàng daal di koy tëjaat jox ko ab taalibeem wala jox ko kenn ci ñi nekkoon ci foofu mu dugal ko ci biir ci la génnewaale enveloppe bu am solo boo xam ne nit mësaguma jox lu toll noonu ba ma dund ba léegi nit mësaguma jox lu toll nii li ma sëñ Sidi Muxtaar jox ci bisub keroog nekkoon nit koo xam ne ku bëgg alxuraan la ak ku bëgg diine waaye nag képp ku doon def loolu na nga xam yàlla dig la dig bu am solo yàlla nee wala siina yumassikuuna bil kitaabi wa aqaamu salaa inna la nudiicu ajra al muslixiin kon sëñ Sidi Muxtaar muslix la koo xam ne yéwénal rek la daan def koo xam ne lu baax rek la xam yàlla na ko yàlla fayal te nekkoon na nit koo xam ne nii dimension spirituelle am jéggi na dayoo xeebul kenn ay wëllëreem yoo nga xam ne démb lañ xamante woon njëkk yàlla di ko dénk xalifa gi ginnaaw bi mu fi nekkee di Sëñ Tuubaa teewul wëllëre yooyu yëpp continuer woon na ko kon daal ñu ngi koy jaale Sénégal yépp di ko jaal Afrique yépp di ko jaal aduna bi yépp di ko jaal communauté musulmane bi yépp xam ne nit ku am solo jóge na fi nekk nit koo xam ne histoire du ko du ko du ko fàtte yàlla nañu ko suñu borom tabaaraka wa taala fayal dimbale gi mu daan dimbale nit ñi ak yóbbu gim daan yóbbu nit ñi màkka lu mat lu ëpp quatre cent personnes yoo xam ne nii yàlla jaarale na seen dem màkka ci euh, loxoom sëñ Sidil Muxtaar nekkoon nit koo xam ne ku bëgg lislaam la nekkoon nit koo xam ne nii ku mën a uuf njaboot la looloo tax bi mu fi nekkee diiru li mu fi nekkee kenn jàmbatul kenn euh, jooyul ndax ku mat sëkk moom moo fi eh, jóge sëriñ bi nga xam ne moo fi nekk wuutu ko fi muy sëriñ Muntaxa Mbàkke ñu koy ñaanal yàlla oyofal yan bi te dëgëral ko te lépp loo xam ne ni fa fas yéene ko liggéeyal sëriñ Touba ñu ànd ko ak moom ndax it biñ xàmmee ba léegi gis ko eh, képp koo xam ne nii nekkoon na fi di kilifaam rek topp na ko toppin bu rafet ba yàlla dogal tey moom muy kilifa di kilifa yoonu murit ñëpp kon nag ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla yàggal ko fi bu baax ci barke Sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum